les faits se sont déroulés le 2 février nañ jàpp dal bi la 2 avant muy porter plainte nee na ci la dem defi prélèvement avant muy porter plainte tout acte fait par le pré par la partie civile. avant avant réquisi dem ñun. avant dama lay wax réquisitoire procureur nee na dañoo demande réquisition au laboratoire ni ko mu jox leen prélèvement yi am le 2 février c'est-à-dire avant la plainte. laboratoire bi ni ko ñun de li ñu indiloon fekk nañ ci sperme. mais moom lu ñu ah, leen lu ñu. li ñu indil. prélèvement nee ah, na prélèvement bi ñu leen indil. fekk nañ ci ay spermatozoïde vivant mais le 2 février lañ ko def. avant la non ah, euh, un instant s'il vous plaît. il y a une différence entre prélever ak ñu jël si ñu ñu ñu jël. si benn def analyse si lu ñu indi. boo ma dégloo rek di nga comprendre. non non dama bëgg mu leer. moom laa lay leeral. parce que prélèvement fan lañ ko prélevé. <coughs> déggoo xale bi jigéen bi avant muy porter plainte. waaw dafa njëkk bi ñu génnee Sweet Beauté mhm. jëlul gendarmerie yoon bi dafa dem directement hôpital ñu ñu consulter ko. Mhm. bi ñu ko jógee ci consultation bi ci la dem gendarmerie. <coughs> ñëw ni leen man de defal nañ ma sax ay prélèvement gendarmerie ni ko déet prélèvement yu ñu la defal. Mhm. avant nga fee ñëw amul valeur. dañuy def réquisition à personne qualifiée. d'accord ñu ne ko foo demoon mu ne man hôpital Grand Yoff laa demoon. ñu ne ko kon normalement du hôpital Grand Yoff mais dellu fa mais nga ànd ak ay gendarme ñu def réquisition ni médecin bi seetal ñu kii. Mhm. médecin bi seet ko def ay prélèvement yeneen prélèvement mhm. léegi juge bi ni ak procureur. ak le juge Maham Diallo moom prélèvement yi ñu def sur réquisition maanaam les seuls prélèvements valables le 3 février. d'accord du ko considérer day dem considérer prélèvement yi xale bu jigéen ñi defal boppam wala ku ko ko defal le 2 février. sama <coughs> cadre te moom na ñaari mbir. Mhm. aussi bien les prélèvements faits le 2 réer nañ réer nañ que les prélèvements faits le 3 xam nga maa xam jàll kenn laajagu ko Alfousseyni Gaye certificat médical bi mu bind ak prélèvement yi mu def ana réer nañ. ça veut dire quoi ça réer nañ. réer nañ perdu. Hmm. ils ont retourné le laboratoire. déjà yow sa réquisitoire nga basé ko sur des prélèvements faits le 2 avant la plainte avant réquisition de la gendarmerie. il s'est basé sur les prélèvements supposés du 2 qui ont dit que trouvé nañ spermatozoïde léegi yow boo demee def test ADN sur quelle base nga koy defee xam nga test ADN lan nga waroon wax waaye première chose. il y a une conjonction sexuelle établie dinaa la indi ñetti jurisprudence cour suprême nga comprendre lan mooy certificat médical ak son importance nga ni conjonction sexuelle kii bi ni la am ñoom ñaar sequñu foo jëlee sperme léegi waxal spermatozoïde. sperme sperme ci bopp waaw spermatozoïde. voilà mooy franchement parce que. waxal spermatozoïde donc dafa ni. ñoom ñaar monsieur le ministre nee na nga bàyyi juge bi dafa ni. le le gynécologue dafa ni ñoom ñaar seeku ji. bi xale bi jigéen bi demee ànd ak ay gendarme dafa ni absence de lésion vulvaire. dama laaj à tous les spécialistes. lan mooy absence de lésion vulvaire. mooy ñaar ñi amul conjonction sexuelle. ñoom ñaar seeku ñu dara. léegi moom nee le 3 tout ce qui s'est passé sur la réquisition de la section de recherche. Amadou Ba on est dans ah. hmm? wax. si loolu loolu ah. tribunal lañ koy wax buñ dugg si loolu Amadou. Amadou loolu intéressé wuñu. ba dem ba dem tribunal. on est dem leen ngeen wax ko fi vraiment ñun dañoo yónni nañ bu ñu wax si dossier bi su ñoo ñëw ci dossier bi li muy wax ñun intéressé wuñu loolu dem leen tribunal ngeen wax ko vraiment quand c'est pas le arrangé na ko ñaari côté mais ay économie familiale yow xam nga Sénégal dañoo jàpp ni viol tey la xew ci magistrat ak tribunaux yi bi viol nekkee délit nekkagul crime de. Amadou Ba bu ñu wax ci dossier boobu. déglu rek nañu wax ci ay textes laa lay wax ay jurisprudence man bokk ma sa spéculation. non mais loolu intéressant non non mais ça ça ne pas. non mais Amadou. le niveau du débat. waaw waaw qu'on puisse aller vraiment dans l'affaire politique quoi. on va on va quitter. donc on n'est pas encore dans l'affaire politique. waaw vraiment ñu dem ci politique bi. bàyyi kii bi quoi loolu moo ñu intéresse. prélèvement yi mënul am contre expertise parce que réer na. waaw dem leen tribunal voilà mais am tribunal ok ma ñëw nii la. cour suprême dafa bâtir. boobu viol mm-hmm. du woon crime de. voilà le niveau du débat. du woon crime lan la cour suprême bâtir dafa ni.